kawteef mbégte ak contentement la ñuy am saasu na ne rek bu ñu amee invité fii ci kër gi di leen ko présenté tey nag suñu invité kenn du ko présenté Ahmed Suzanne Camara ñëpp xam nañ ko xanaa rek ñu fàttali ne bokk na ci leader des membres du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République ñu koy wax it gaynde APR wala it Baye Fallou Macky Sall <laughs> monsieur Camara ñu lay nuyu di la bu baax ci Sénégal ak kawteef waaw maa ngi lay fay euh, bu baax jànke maa ne alors donc di nuyu képp koo xam ne rek mu ngi ci biir kër gi ci groupe bi Sénégo ba pare aussi di nuyu képp ku ñuy seetaan ak ku ñuy déglu di nuyu képp ku bokk APR euh, di si jiital sunu responsable président Macky Sall ak soxnaam Marème Faye sàll te mu baax vraiment di jàppale borom këram di nuyu aussi képp kuy jàngalekat Eh, jàngalekat bo eh, ak jàngalekat aussi yu bokk APR maa ngi leen di nuyu di si jiital aussi yu Touré nga xam ne moom moo ñu jiite ak képp koo xam ne rek crain en main nga wala boog nga nekk ci ci service yi di nuyu képp ku dëkk Koungheul parce que fa laa juddoo di nuyu aussi képp ku waaw ku dëkk Ndar parce que foofu laa yaroo aussi Dakar aussi daanaka fi laa màggee parce que fi laa defee seconde eh, première ak terminale voilà donc mais di kontaan aussi si tur léegi Euh, parce que euh, mooy gaynde appaire bi ak Baye Fallou Macky ndax gaynde appaire bi euh, Koungheul fi may militer politiquement donc ñu bari ci yenn responsable loolu lañ may wooyee gaynde APR am na aussi ñoo xam ne aussi jàpp nañ ne man aussi si ma sama taxawaay donc dama mel ne Baye Fallou Macky Sall te loolu aussi dama ci fier waaw ndax sama engagement ak sama détermination laa àndee boobu ba léegi le président Macky Sall depuis 2006 te tant que bàyyiwul politique wala génnul ci seenu politique dama con dama fas yéene continuer ànd ak moom. waaw su bàyyiwul moom du ma bàyyi. su bàyyee nag moom yàlla mën a def it ma jaaree fa bàyyi. am na ku ko wéy sa waaye xam naa tur bi moom moom moom laa fàtte ni soo bàyyiwul du ma bàyyi. Mhm. parce que xam mhm. <laughs> ko wéy ñuy profité di jaale waale mhm. ci gàmmu bi ak bi fa amoon. ñu leen di jaale bu euh, ne moom suñu borom jéggal leen seen bakkaar. tey gaynde APR. Baye Fallou Macky Sall moom daw ci dara ndaxte. gis nañ ay sorties yi nga xam ne mi ngi koy def mhm. récemment sa vidéo bi mhm. nga wax mhm. nga wax moo bu rëy doon na moo bu ngande rëy na ci nopp ñaaw na ci kàddu wante it wax nga ko ndaxte nee dañu war a euh, Sénégal dañu war a traquer les bâtards qui convoitent le palais lu tax le mot bâtard mot bi ñaaw na ci mhm. pays boo xam ne république la nga yëkkati ko. Mhm. waaw d' abord jaale bi nga wax euh, waa Koungheul te am nañ yeneen dëkk aussi wala ay ñoo xam ne seen ay mbokk aussi yu amoon ay jafe-jafe ci ay accident ci yoon bi xam nga lu mel na ay comme Touba Magal wala euh, Gàmmu bon nit ñi dañuy jógandoo te chauffeur si aussi des fois war nañ di bàyyi xel. Euh, plusieurs voyages yu ñu bëgg a def en même temps du ñu nelaw wala du ñu noppalu bon nit ñi tamit aussi ñoom it lu ñu am jël xam nga ak euh, c'est vrai que euh, gouvernement président Macky Sall ak gouvernement Abdoulaye Wade yëpp def leen ay jéego ci wàllu infrastructure routière mais tamit nen nen ci gën a yokk ba pare aussi chauffeurs yi aussi gën a am conscience xam ne ñi ñuy yàpp aussi duñu ay bàyyi ma même ay bàyyi ma sax waroo leen yàpp ci ay yenn conditions alors donc di jaale ñëpp euh, famille yëpp ak di ñi blessé aussi di leen ñaanal ñu am tawféex mm-hmm. waaw ci question bi nga wax léegi euh, c'est vrai am na vidéo bu génn bu buy wane à peu près li nga wax mm-hmm. xam nga man euh, tey li ñu seetlu mooy opposition ñoom lu leen neex wax lu leen neex def te kenn du réyal seen mbir wala boog kenn du leen ŋàññi mais ñun pouvoir d'accord c'est vrai que ñun lañ jox pouvoir euh, ñun lañ jox réew mi pour ñu doxal ko waruñ di téesante waruñ di tontu mais nag tontu du tontu sax mais leeral la wala boog recadrer parce que tamit ñun ñoom ñu bàyyi leen ñuy wax rek c'est vrai que ñoom ils ont le pouvoir de la parole alors wax lañ féete dañu war a wax mais tamit ñoom waruñu wax n'importe quoi wala waruñ wax lu leen neex wala boog euh, di di weddi loo xam ne jaxaran parce que tey pouvoir euh, euh, bilan au président Macky Sall ñëpp ci d' accord ñoom seen bopp sax xam nañ ne le président Macky Sall il a bilan mais peut-être si bilan immatériel bi foofu moo am ay sooxe mooy fi ñuy ŋàññi souvent ne justice bi wala euh, wala nangam wala nangam mais kon ñun tamit war nañ leeral ne président Macky Sall def na fi lii. wala boog parler mhm. bâtard mhm. c'est c'est un gros xam ne tey mhm. euh, bu nekkee sa xale buy door a jàng boo ko waxee moo bâtard uh-huh. nga xam ne loolu saaga la wala uh-huh. dañ koy aaye uh-huh. xale mu koy wax ci kàddu tout nag mag yëkkati ko mu nekk koo xam ne porteur de voix la est-ce la ngay wax yenn kàddu yi waaw man ñoom saaga yi ñu yëkkati ak xaste yi ñu yëkkati ak mooyu ñaaw yi ñu yëkkati jëmale ci ñun man duma ci jaaraat mais xam nga ne yow ak ñi ñuy déglu xam nañ ne opposition wala ñi nekk ci wàllu opposition yàgg nañ yëkkati ay kàddu yu ñagas teg ko ci président Macky Sall wala teg ko ci ñu mu àndal te président Macky Sall père de famille la comme ñëpp am njaboot am ay waajur donc muy metti ci moom mu koy muñ ñun ñu ànd ak moom du ñu neex mais man li ma wax dama leen ko delloo c'est-à-dire à la hauteur ñoom liñ ñuy wax xoolal liñ fi wane ak xoolal li ñu fi def ku mel na Barthélémy Dias ak ak ak eh, ak kii ak Guy Marius Sagna ak eh, ak seen ak seen maam eh, Ousmane Sonko mais chaque jour ñu wax fi lu leen neex def lu leen neex te ñoom bu ñu xooloon seen bopp mais du ñu xas kenn du ñu saaga kenn parce que gënuñ fi kenn juddu au contraire sax dañ leen a gën judd c'est ça la vérité loolu mooy wax ci politique bu ñu ba ci mbirum juddu nit ñu koy lijjanti

Euh, ndox ndax am na bu doy wala amul yooyu la ñuy xaar mais nag su fekkee ne aussi ñun ñu ngi liggéey te ñi ko war a def ñu ngi koy def le président Macky Sall xam nga ne xasul kenn saagawul kenn tontuwul kenn moom mu ngi liggéey ak ñi mu àndal ak le premier ministre ak son gouvernement waaye nag comme ñun sama genre gi munuñ muñ ñuy xaar le président Macky Sall ak nguuram mais dañuy réagir loolu rek la est-ce réaction bi doolul day danga ci am benn genre. Mhm. bon su ma ko mënee wax cadeau. Mhm. tooyal sa ceeb loolu moo leen motiver ndax tey jël risque di wax nit ñi bataar wala di woote ndax nañu rey nit. dara du la ci fekk tamit. Mhm. est-ce motivation ci ginnaaw. yow xam nga ne boo ma xoolee xam nga ne man aw ma aw ma motivation. waaw <laughs> <laughs> <laughs> léegi sénégalais yi ma yi ma dëkkal ak yi may gis. ak yooyu ñoom xam na ne man awma motivation bu ko jar mais nag yàlla moo ma ya waaw non yàlla moo ma natt ak le président Macky Sall ma bëgg ko sama xol di ko jàppale mais xam nga ne man taxawaay bi ma am ci moom amul prix amul valeur parce que même ñi ma jege dañ ma koy wax ndax lii jar na ko. demewoo ci loolu la yàlla dogal xam nga ku nekk da ngay am natt et je revendique man. yàlla moo ma euh, te président Macky Sall xam na loolu bu ñu daan boo daan buñ nekkaan dans l'opposition euh, maanaam di war a préparer ay combat politique <laughs> mbaa Barthélémy Dias mii xam na ko ñoom ma mbay ñaa ak ñoom biram Faye xam nañ ko président Macky Sall ak ñoom Badou Diouf député xam nañ loolu président Macky Sall danaan yónnee ci man ne Amath Suzanne bu mu dem parce que bu demee euh, dana def li ëpp li nit ñi di def te bu ñuy jàpp moom la ñuy njëkk a jàpp lu bu ñuy def mettit man la ñu koy njëkk a def parce que du reculer dama ciy dem sans sans sans calcul. calcul boobu sax question la boo xam ne mhm. internet yi mhm. boo xoolee réaction yi mhm. parce que man à chaque fois bu ma amee invité damay dem def le tour de la toile xool euh, commentaire yi nga xam ne internet yi aussi dañuy bëgg ñu leen koy laaj c'est te yaa ci say cadre président doo ci dem ak sago tey ñenn ñi aussi ci commentaire yi dañu naan ne prise de position yi est-ce que kii ànd na ak sago <laughs> waaw non bu may wax euh, sans sago c'est parce que loolu eh, kii bi la rek eh, maanaam eh, cofeel bi mais nag je suis je suis le sud waaw waaw non non effectivement des fois ma gis comme ni nga koy gisee des fois ma gis ñuy parcourir ma parce que man am na ñu koy wax ne ñoom bu ñu dugalee dara ak yooyu du sax liir commentaire man c'est vrai que je peux pas lire tous les commentaires mais damay faral di lire commentaire parce que aussi retour bi daf may day day am njëriñ mais pour vous dire am na si yoo xam ne sax damay tontu mais du ma tontu nag quand même comme ni may waxee wala comme ni may kii ak yooyu quoi su ma nekk ci plateau wala affaire yooyu dama ci boole tuuti modération wala des fois sax ma kaf ak yooyu comprendre nga mais foofu su ma toogee nii par exemple tey ma nekk ci plateau mais loolu beneen nit la dama nekk ci mission dama nekk ci liggéey mais su ma su ma pare woon tey sa plateau bi gis nga kaf ak ree avant may dugg si aussi ci rédaction bi laa toog presque mën naa ne émission bi sax fa lañ ko def parce que ñu ngi kaf ñu ngi waxtaan de tout et de alors donc man musuma tux cigarette duma sax naan ataaya aucun excitant du ma ko jël bay naan sàngara wala di tux boon wala leneen donc musuma ko def te duma ko mës a def te ñi ma dëkkal fi ma yaroo fi ma juddoo xam nañ ko waaw donc loolu mësul nekk sama sama sama affaire julli laa xam dem jàkka ja léegi yow boo xoolee dama ne la su ma son sama sago ma ñëw à côté jullee ci jàkka ji julli ñu soog a def émission donc fii laa wër jàkk bu gën a jege ma dem julli fa donc man euh, toutes les prières je fais tout pour prier à la mosquée donc ku may koj jëm ma koj ci jàkka ji alors su ma amee temps nekk sama kër ma maa ngi wir su fekkee maa ngi ci mbedd mi aussi donc ma continuer dox sama dox sama soxla euh, démb am na émission bu ma doon def ñu ma koy laaj ne ma dañ la gis ngay woor tout le temps donc sur sept jours ñetti fan yëpp dama koy woor donc xaaruma koor gu mag gi lundi ak jeudi ak vendredi yëpp damay woor kon xam nga kon waaw kon xam nga kon man voilà am naa gëm-gëm mais nag nen ma comprendre su ma toogee ci tele ak ci rajo di défendre le président Macky Sall président Macky moo leen ko moo moo leen gën a xam man alors donc moom xam na ne ci moom aw ma ci sago mais nag voilà je suis une personne normale suñ toogee maa moom dañuy waxtaan wala su ma toogee dans le cadre du parti aussi te kenn mësuma gis dans le cadre du parti wala sama biir kër ja j'appartiens à une à euh, fi yaroo sama kër maam falaa judo juddoo c'est une c'est une famille polygame mon père fut polygame ndar aussi fa ma yaroo aussi voilà c'est une famille élargie mais kenn musuma atte suñu biir kër ah, musul am musul am déjà <laughs> c'était important parti uh-huh. boobu ñu leeral ko uh-huh, tout à fait troisième mandat validé nga ko uh-huh. tey wàcc sur le terrain bu jotee est que di nga ko def ndaxte ay slogan génn na bul ko sa xalaat waaw xam nga tey opposition bi ñoom contre troisième mandat lañ nekk mm. mais ñun ku ànd ak président Macky Sall da nga ànd ci mu defaat beneen mandat. mooy que ne mandat wu bi beneen mandat boobu du mandat mandat wu ak cinq ans du mandat consécutif loolu mandat simultané la maanaam yoo xam ne dañu toppante mais mandat consécutif mooy ñaari mandat yu bokk benn durée ñun loolu lañ gëm. loolu waaw <laughs> xam nga droit xam nga droit am na effectivement euh, droit moom euh, même ku ku jàng rek war nga xam lu yoon euh, lu yenu maanaa ci mm. yoon mm. mais nag am na ñoo xam ne c'est des experts du droit ñoo xam ne ñoo ko def seen métier wala boog jàng ko def ko ci carrière mais moo tax ñu ne am na ku ñuy atte ñoom dañuy wax lii ñun ñu ne wax la le te ñoom si ñoom am na ñu doon wax dañ cee génn rek am na ñu doon wax vidéo yaa ngi fi vaar baa ngi fi ñu doon wax ne mag le président Macky Sall am na droit à un autre mandat de cinq de cinq ans gis neen ko ñëpp gis neen ko mais léegi contexte politique tax na ba ñoom ñu dellu si di wax leneen comprendre nga comme ñoom nit ñi jiiñee ne ñun ñu ngi wax leneen mais man li ma wax mooy am nañ ko ñuy àtte conseil constitutionnel bu si tollee su fekkee président Macky Sall décidé na parce que ba léegi waxagul kenn que day def un autre mandat waxu ko kenn même ñun ñii ko jege wala bokk bokk ci parti mosu ñoo dajale ne amaat wala yéen jàngalekat yi yéen les cadres wala yéen les femmes dama ne bés buñ ci tollee jàppale leen ma damay wut beneen mandat mosu ko def même en intimité moi je n'ai jamais vu le président le dire pour vous alors donc mais bés bu demee ba décider ko wala parti bi décider ko ne yow dañ lay samp mu nangu ko mais boobaa conseil constitutionnel moom mooy saytu dossier yi bu d'accordee ñu dem ci bu d'accordul aussi ñu wut beneen candidat mooy le mais man li ma gëm mooy que man dama gëmul la limitation des mandats wala boog nañ ko commencé ci mairie ak président de conseil départemental ak député yi pour pourquoi ñoom duñ am duñ limiter seen mandat ñu euh, député à vie Euh, maire à trois mandats wala quatre mandats déedéet et puis le euh, euh, la limitation des mandats est-ce que c'est ça qui garantit le développement d'un d'un pays est-ce que ku limiter sa mandat rek yow sa pays boobu développé na Chine Chine a ngi amul limitation de mandats et pourtant c'est une grande puissance ou bien c'est la première même puissance. est-ce que mentalité bi waa Chine am Sénégal fii yor nañ ko ndaxte dañuy xam ne dina nekk 40 ans au pouvoir. Mhm. changement du fa am. Mhm. te euh, population bi gis seen bopp. Mhm. tout à fait waaw non moom loolu moom wax naa ko fenn ma ne d'accord ma comme le président du Cameroun nga xam ne kooku nga xam ne presque dëkkul sax Cameroun Suisse génn dëkk nga xam ne foofu rek laa bëgg dama fay dem euh, ndeysaan chaque année. ak yooyu donc euh, Suisse presque lay nekk li muy nekk ak Suisse moo ëpp li muy nekk Cameroun ñaata at plus de quarante ans magget Xubidaas non loolu kenn d'accord ko oui mais li ñu d'accord mooy des mandats de 7 ans nga def par exemple 14 nga dem ou bien maximum nga def ñetti mandat nga xam ne ñeenti mandat wu 5 ans un te it bu ñu waxantee dëgg mais Euh, pourquoi ne pas toujours faire confiance aux populations Abdoulaye Wade da nga ni bi mu fi bëggee troisième mandat population yi du dañuy dañu bañ mu dem Abdou Diouf bi mu fi bi mu fi nekkee il a euh, euh, fekkoon na mu def fi au moins trois mandats mais ba mu ba mu ba mu bëggaatee beneen mandat sénégalais dañu bañ bañ mu dem donc tey yaa xëyti mulaan Macky Sall le président Macky Sall 2024 bu bëggaatee sénégalais bañ mais day dem. mais su fekkee bëggaat na sampaan ndëndëm Sénégal ay wateel ko mu toog fii liggéeyaat jeex na loo rek la Sénégal jëm kanam waaye jarul yàkkamti. yow daal pare nga ko am na solo lu mu jar président Macky Sall bu décidé nekk candidat 2024 conseil constitutionnel validé ko lu mu jar dinaa ko def bu jaree sama bakkan bii ma jox yow xaw xama xam président Macky lu ma jaral ci wàllu politique président Macky Sall amul lu ma jaral sama bakkan jaral na ma ko c'est vrai am naa ay doom am naa njaboot war naa leen xalaat mais li mu gëm la sama gëm-gëm la et te boo boo nekkee ci dara da nga koy gëm man ba may jàngale ñëpp ñi may ñi ma samay anciens élèves ñu ngi may dégg ak les enseignants yi ma bokkal école 100 pour cent laa daan def j'étais un maître de cm de sama fin wu carrière maître de cm du ma jàngal élève te te je li may wax ñu ngi koy dégg euh, ay composition standardisée lañ doon def te defe naa moo am ba léegi maanaam yow jàngalekat bi yor classe C1 wala C2 euh, euh, composition yi du yow yaa koy proposé te du yow yaay surveiller say élèves da ngay dem ci beneen école beneen classe beneen maître mooy ñëw sa sa classe jàngal di di defal xale yi composition samay élèves premier semestre de laa wax xanaa premier semestre mais ba à partir de deuxième semestre troisième semestre amul sama benn élève bu ñàkk moyenne amul donc cent pour cent ci moyenne ma dem CM2 aussi cent pour cent laay am certificat ak entrée en sixième parce que lu li ma gëm ci lay nekk man dara duma ma tardeel lu ma gisul sama njëriñ wala loo xam ne euh, Euh, gëwuma ko du ma ci nekk. d'accord 100 pour cent boobu la ñuy def transition ñëw ci deuxième partie. Mhm. wax éducation gis nañu aussi que ubbi tey jàng tey. Mhm. dañ koy wax slogan rek mais problème yi ñu ngi fi. d'autant mhm. plus que 45000 déficit enseignants yoo xam ne euh, ñu ngi koy jàmbat. tey lan ngay wax ci système éducatif boobu nga xam ne à chaque année scolaire. dafay riime grève Euh, débrayage mhm. réclamation mhm. protocole wala mhm. promesse non kii waaw question bu am solo la te laal na lu bari def maanaam lang laal na lépp tey par rapport ak contexte bi li ñuy dund ci ci njàng meek njàngale bi d'abord li ma ciy wax 45000 enseignants yooyu nga wax déficit loolu waa COSYDEP ñoom Cheikh Mbow sama xarit ñoom ñoo ko wax nguur gi wala éducation nationale ne 4600 waaye am na ren rek directement 2000 te président Euh, ba mu recruter daaw yeneen mille de plus ci 3000 yi ñu recruter woon bu ko defaatee gab bi mën nañ ko romb donc kon xam nga ñii dañu wax lii ñuy wax li mais dëgg-dëgg si système bi laa nekk je suis un mais je sais que 45000 c'est exagéré xëy na peut-être ñoom dañu tenir compte ci maanaam comme ay France nga xam ne classe bu ne vingt élèves la war a def wala warul vingt cinq élèves su fekkee ci euh, contexte boobu la ñu wax fa jege wala nekk ay 10 mille wala ay 15 000 mais xam nga fii euh, contexte yi du benn réalité yi du benn fii classe moyenne bon mën nga dem ba 40 wala cinq c'est vrai que gis nañ fii ay classes yoo xam ne ay 80 ci yenn zones yi euh, nga xam ne voilà surtout banlieue bi bëgguma leen agressé mais da ngay gis ci yenn zones yoo xam ne da ngay dem xale yi nekk ay 80 ci benn classe wala loolu du yoon ak yooyu donc mais loolu lu koy indi. mooy manque de euh, salle de classe yu doy ak manque d'enseignants et que si yenn te au de la même des enseignants euh, mais ci professeurs yi ñu insister si am na yenn discipline yoo xam ne xale yi duñ ko def parce que euh, peut-être amuñ prof espagnol bu doy wala amuñ prof maths yu doy donc yooyu tamit yu ñu war a corriger la mais xam nañ ne moom déficit ci wàllu njàng ci wàllu jàngalekat moom am na c'est réel ci wàllu aussi salle de classe yu doy aussi am na ci wàllu école yu doy am na mais ci wàllu aussi jumtukaay table banc aussi am na looloo waral ay abri provisoire abri provisoire dafa war a dëj abri provisoire moom c'est vrai que gouvernement bi am na jéego yu mu ci def mais dañ ko war a dañ ko war a waaw on doit éradiquer définitivement les abris provisoires waaw léegi nag ci wàllu yëngu-yëngu yu aussi c'est vrai que daaw yëngu woon na lool ñun suñu syndicat bokk na ci syndicat yi njëkk a porté euh, euh, voilà les revendications avec G20 ak waa G7. wante seen syndicat boobu déjà fa bëggoon indi sama. Mhm. deuxième question bi mooy jubóowu leen seen biir. Mhm. ndaxte boo xoolee. Mhm. yéen enseignants yi ànd ak président Macky Sall. teg nañ fa jiit waaye tey yéen. waaw loolu euh, si wàllu loolu si wàllu politique duñ ko tuddee syndicat dañ koy tuddee euh, maanaam syndicat mooy maanaam ci wàllu voilà ci wàllu nguur gi comme man ma nekk Euh, def sama formation pour nekk jàngalekat yooyu dañuy organiser wu en tant que syndicat euh, comme ni ñuy syndicat yi di daje comme ni ma waxee g boole G7 ak yooyu euh, foofu ci wàllu politique bi effectivement structure la comme structure des femmes structure des jeunes comme ni ma ko limee ak structure des cadres ñun bi ñuy soog a ñëw au pouvoir 2009 le président structure bi mu njëkk a mettre en place c'est le réseau des enseignants de la mu jox ko Youssou Touré mu jiital ko mu jiite ko man ma topp ci ginnaaw et j'avais accepté d'être derrière lui ba may ànd ak président Macky Sall depuis 2006 boobu xëy na xamante wul ak président Macky Sall et xamante taxul mu muy def politique mais ba ma ba ba 2009 jotee dafa ñëw décider ànd ak le président Macky Sall mu ñëw président dénk ko après jàngalekat yi aussi d'accord man ma topp ci ginnaaw ak ñoom Abou Sow ñoom Madou Mbassa Sarr ñoom ngenaar ñoom ñëpp léegi nag bi ñu demee ba Youssou Touré war a décrocher ñëpp jàpp ne war na décroché ak yooyu euh, président aussi nangu ko partie bi nangu ko bon léegi nag dañ yeewu suba rek ñu ne euh, ndaw soosu moom moo ko jiite te li ñu si gën a jaaxal mooy au lieu mu tudd réseau national des enseignants mais mouvement national des enseignants la tudd ñu ne kon lii moom structure bu mu créer la wala boog ñoo xam ne def seen lobbying au niveau du parti def ko parce que même au niveau de l'enseignement supérieur am na fi euh, bon du ma du ma du xosi sama mag le ministre ab ab ak kii euh, Moussa Baldé moom réseau des en des universitaires la jiite mais loolu euh, aussi si façon boobu rek la créé woo mais pourtant ñun au début au départ sax doon leen xaw a agité wu mais après yenn kilifa yi nañu non lii yàqalu leen dara ak yooyu parce que bi ñuy créer le réseau des enseignants Euh, tout tous les ordres d'enseignement étaient représenté mu amoon ñu ko jiite et devant le président Macky Sall mu validé ko alors donc bu ñu demee ba ci yàgg gis euh, ci benn pàcc euh, enseignement supérieur ñoom ñu créer seen yëfu bopp dem donc loolu te yoon na sunu xel mais après bi ñu kilifa yu waxee dañu bàyyi ñun ñoom ñun ñu continuer sunu réseau des enseignants ñoom it ñu continuer réseau des des universités te ba léegi ñu ngi yëngatu boo leen boo leen gëstoo alors kon ñu jàpp ne aussi ñun tamit comme le président Macky Sall aussi waxuñu ne ñu ah Amath Youssou yéen de yéen a jiite woon mbir mi léegi nag man dama ko bëgg a jël jox ko keneen te kooku boobaa aussi duñ ci am benn problème mais defu ko avec les femmes dafa jël mbir mi ci madame Badiane jox ko ndey Saly Diop ja euh, ci euh, cadre yi ba euh, na Alassane demee mais daf ko jël jox ko Diouf Sarr même au niveau des sages pas sunu sunu papa jooju ko yoroon dafa génn àdduna ñu jox ko pa euh, pa kii euh, beneen pa bi euh, le gouverneur alors donc kon président Macky Sall aussi bu defoon noonu la même chose ci wàllu njàng njàng mi si ñun réseau des enseignants aussi duñ ci am benn problème mais ñun defu ko tooguñu ak ñun waxuñu dara kon ñun dañuy continuer existe ñu jàpp ne kooku it mouvement la créé dafay continuer exister parce que gis naa sax ñuy wax ne président recevoir na ko fii nangam mais président ñaata ñu am mouvement le recevoir Eh, mais quand même nañ waxante dëgg donc képp ku jóg créer sa yëfu bopp même ay réseau de journalistes sax bu créé woon mais ne dañuy jàppale président Macky Sall du leen recevoir waxtaan ak ñoom mais quand même nañ waxante dëgg donc kon moom tamit wala euh, elle peut euh, war war na mën a créer yëfam wala boog am ñu ko jàppale mu créer yëfam euh, voilà di yëngatu ak yooyu mais ñun en tant que réseau des enseignants de la paire on continue à exister li ko mën a arrêter mooy président Macky li ko mën a dissoudre président Macky mais keneen ñun benn kilifa lañ am muy moom mais keneen du suñu kilifa. <laughs> waa man kontaan naa lool dajeeg yow euh, maane Dianké vraiment question yi am na solo waaw donc di leen ñaanal waa talent bi gën a yokk ba pare aussi yàlla bàyyi fi xéwal ci kër gi waaw donc euh, yéen presse bi ñun dañ leen soxla parce que ñun bu ñu siiwee yéen la waaw bu ñu siiwul fu ne la ñuy wër pour ngeen invité ñu même Ousmane Sonko mi ñu tudd yàgg na ko def te gis naa mu leen di nobe léegi bu ñëwee kenn du ko posé question parce que bañ na gars yi dugg ak moom ci yenn question moom kay na leen euh, sujet bi bu leen ci dugg wala boog na leen wax ne euh, ak kii na leen ne euh, centre d'intérêt yi ngeen di laajte mais waaw waaw na def waaw mais point de presse rek yow rek yaay wax journaliste duy wax te yow nga daan wër rédaction yi fu ne nga dugg fa fu ne nga fexe communiquer génn fa waaw mais yéen na leen na leen delloo seen kii kon moo xanaa bu nekkee président de la république moom du yéen euh, du du leen du leen kii du leen dalal ca palais ba ah neen waxante dëgg te xam naa ne moom yàlla na yéex loolu yàlla bu mu am sax waaw moom moom président la république moom xamul dara mënul dara amul immunité am xamul xam-xam amul expérience dafa war a jàng defar jikkoom xool ñi muy àndal mais ku activiste bu jóg saagakat bu jóg xas tekkat bu jóg rek Ousmane Sonko nga àndal loolu dëgg la noonu la ñuy yoree réew noonu la ñuy jëlee réew suñu bakkan bi ñoom lu mu leen jaral ñu jël réew mi suñu loxo ñun jaral nañu lu ko raw pour pour conserver le pouvoir